jour du match match bi ñëpp doon xaar nag euh, tey jii la euh, ci ngoon gi euh, diggante Liverpool ak Real Madrid Pep Guardiola wala boog Pep Guardiola mi am envie yenn saay sax di dégager ay poto ndox j'ai envie de faire mal de me faire mal maanaam loolu bokk na ci kàddu yi nga xam ne maanaam yëkkati na ko waaye gars yi image bi nag <laughs> image bu am am solo la gars yi a ngi ci info matinal chaque matinal di ziar sama gars yëpp nag di leen ci yéen di leen wax ne yéen bu baax bi abonnement bi bu leen ci des ginnaaw foto bi nag xam naa photo photo montage lay doon quoi ndax kii di Asensio maanaam moom la ñu jël dugal ko ci palaasu kii di Sergio Ramos en tant que capitaine bu ngeen xoolee kanam gi yaaka naa di ngeen xam ni kanamuk maanaam Asensio la mi défenseur central mi war a remplacer tey Ramos ndax bu doon Ramos day football tey Real Madrid mooy ne ci kanamu kii di euh, Antonio Rudiger. kon nag gars yi dañoo xarañ quoi bopp bi leen jël rek teg ci capitaine beeg yooyu ak Ramos ak yëpp mi bi war a <laughs> doxal. Euh, ci kanam tuuti ci match bi Real Madrid nar a am di ko football am na solo gars yi nag lii man daf ma jaaxal quoi euh, Pep Guardiola dafa mujj démb sax xamatul lu muy wax quoi en conférence de presse en zone mixte di wax wax yoo xam ne est-ce que gars yi war ñu ko xool mentalement ba xam ba baa ngi baax jàpp na ne moom fi mu toll nii yenn saa day am envie di am envie di di def loo xam ne naka sudul noonu la quoi. wooy day am envie tamit yi di ko dóori kurfañ ak yooyu quoi ni ma ko mën a waxee daal ci gàttal noonu la demee quoi. maanaam dafa dem ba benn instant dafa dafa dafa mujj ni moom sax est-ce dara la parce que lii du yow classé nga li nga war a classé teg sa équipe mais équipe bu ne day toll ci ay jafe-jafe il faut il faut nga accepter nga accepter quoi jamono yee passé Real Madrid toll woon na affaire yu métti maanaam Mbappé Kosoor mais dañ ko gérer dem quoi il faut nga gérer ko Pep yow champion nga jàmbaar nga et puis mooy loolu quoi il faut nga gérer loolu. démb nag euh, Barcelone <laughs> gis ngeen ni Lamine Yamal dellusiwaat na rapidement. mais nag euh, dellusiwaatul ngir football mais dafa dellusiwaat ngir nekk ci li nga xam ne mooy turbine yi mën a seetaan ab équipe pour mën a gën a récupérer bu baax a baax moom Lamine Yamal récupération boobee dana baax ci li nga xam ne moo jëm ci match yi nga xam ne ab équipe am dëgmal na ko mais démb nag ab entraîneur am def na lu rëy maanaam gagné match 3 bi à 0 sans Lamine Yamal <laughs> loolee lim ko def ci lim ko def ci ci ci ci ba mu toogee Barça ak léegi est-ce que am na wala bariwul sans Lamine Yamal muy dóor ay victoire muy gagné bariwul lu mu ko def quoi. Lamine Yamal tamit star la woon ndax gaa ñi supporter yi fu ne mi ngi fay ñëw di ko jima jege di def moom ay selfie ci image yi ngeen di romb daj dëpp gi Real Madrid mu ngi noonu bat sub Ligue des Champions démb nag gis ngeen ci stade bii euh, di Anfield ñoom nag euh, àjjiwuñ fa ay fil mais nag <laughs> entraînement nañ fa entraînement bu am solo sama gars yi entraînement bu coxor mbu jéggi jàmm image yaa ngoogu ñoom Edouard Camavinga gars yi ñoom ñëpp euh, mat nan euh, Edouard nga sax moom dañuy taxaw ci moom ndax dëgg-dëgg nag fi bu toll jàmbaar la Mbappé en complicité ak Bellingham Bellingham ma ko dalal démb nee naa leen euh, jox nañ ko fa was <laughs> moom Mbappé gars yi gars yi mooy loolu parfum Ligue des Champions Mbappé googu ci image Edouard Camavinga moom li tax may taxaw ci moom dafa am solo quoi parce que Edouard Camavinga dëgg-dëgg nag moom instant bi rek ci militaire mooy yaakaar Real Madrid mooy joueur bi nga xam ni amul benn werante maanaam moom day football ba football fu dara newul maam bokkul ci footballkat yi war a damm baa bi moo tax kon xaar leen ko moom Edouard Camavinga a it xaar leen ko ci digg milieu terrain bi ci li nga xam ne mooy yooyee match kon gars yi dañ leen di jox ndaje rek ci revue de presse bi ñu yaatal ko mais am même temps sax bu subaa jàmm incha allah dinañ ci wala boog euh, avant match bi commencé dinañ ci indi yoo xam ne yu yaatu yaatu la ma sant leen ànd beeg ñun am na solo Aladji Malick TV yàlla na jëm kanam ci information yi wér te wóor yi nga fi taataana jërëjëf képp kuy seetaan seen bi wala nga ko maa ngi lay béggee bu baax a baax di la wax ni wéy dina dina topp def seen i abonnement di xaar programme yi yees yeeg lépp li nga xam ne danay am ci seen bi ngeen man koy am jaa ngeen jëf ci kanam tuuti jërëjëfati sama gars yi kontaan naa ci yéen bu baax